daw niñ doon dawee si biir am embouteillage yu ndakaaru amul dara lu soppeeku si wàllu liggéey beeg njaay mi capital bu réewu Sénégal soppiwul xar kanam woote gi ku jegi doon woote ak ñenn ñu bokk société civile santaane woon jaaykat yi ak liggéeykat yi ñëpp banque seen loxo tey jile yëf yi mel na ni kenn topp ko fii si ndakaaru waaw sentiruma ko fenn parce que vraiment oto yaa ngi ñëw teer baa ngi fees dal ci teer bi laa jóge ni mais vraiment amu fees dal gars yi góor wax naan 1000 portes daal fan la am xëy yëguñu ko sax yëguñu ko parce que ñoom loolu ñoom la concerné ñoom ñu naan day def loolu mais gars yi siiwuñu leen de. jaaykat yi nekk fii ci Sandaga jàpp nañu ni ville morte di lii ko jege di wootee lu ne mel kenn mënu ko jëfee si réew mu mel ni Sénégal nga xam ne ñu bëri seen loxo jotul seen gannaaw. ñun moom wax dëgg yàlla ñoom instant nii ak fi réew mu toll ñun taluñu ay gero moom vraiment. ndax dépasse la ñuy wër lu ñuy dundal suñuy njaboot. boo bëggee wax nit ki toogal bul dem sa bërëbu liggéeykaay te joxoo ko dara day waar loolu moo tax on est obligé ñun ñu ñëw mais on partage le même combat on est avec eux parce que li ñuy xeex njëriñu réew mi la. coow li dox ci diggante njiitu réew mi Macky ak ku jege ci lu ñeel élection présidentielle yi nga xam ne ba tey amagul date tàmbali na sax di soof ñenn ci askan wi xamatuñu kan nañu war a wóolu. fi mu nekk nañu ba may nañu nañu bàyyi Sénégal mu dal ànd ak dal ñun on cherche que et rien que gisuma lu fi jar ñuy def yenn yi. ah di tëj ay boutique ak yooyu mais nit ñi nañ dem liggéey moo gën. comme ñu ngi waxtaan seen biir te date bi léegi mu ñëw jaru ko naa bàyyi ne léwéte am na lu jàppandu ba élection yi ñëw bu boobaa ku may na ba yàlla jox la ko. mu di moo d'ordre boo xam ne waa Ndakaaru Njaay moom toppuñu ko lu ni mel nag di ab échec maanaam lajj ci plan d'action bi nga xam ne waa aar suñu élection ñoo ko tàmbali ngir rekk ŋàññ doxalinu njiitu réew mi Macky Sall.